madame Ndeye Fatou Blondin Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. ma fàttali yow da nga bokk euh, ci euh, plateforme bi di Sénégal bi ñu bëgg nga bokkit euh, ci mouvement m ngeen def ab ndaje bu yaa ci njeextoolay bis bi wax ci ponk yu bëri ñeel actualité ñu gis ni ci seen bataaxal bi ngeen fësal jàpp ngeen ni njiitu réew mi dafa war maanaam dafa trahir digge bi mu defoon ci kanamu xalif général kullu murid fan ngeen mhm. teg kàddu yooyu. waaw di la jaajëfal ci invitation bi di wax ne que fi ñu ko teg mooy mhm. gannaaw ba ñu ba dëkk bi euh, ndaw yëpp jug euh, ñëpp seen fit dem ñu ragal ne ni ñu jugee doon xeex suñu démocratie mun na jur loo xam ne dina yàq lu ëpp démocratie euh, sëriñ si jug ñoom ñëpp waxtaan ci wax dëgg yàlla mhm. rawatina xalif général des mourides ñëw taxaw ñaan ne léegi lii ñu doon manifester nañ ko teg ci suuf moom dina ci dox ay jéego. Mhm. ñu daal de koy déglu daal de ne ko nag ñun lii moo doon li ñu naqadi lii moo ñu tax a jóg. Mhm. jébbal ko bataaxal. ba moom sax ba mu gisee ne que am na ci loo xam ne am na ci mu ci mën a ci saa si mu ngi génne xaalis bu takku dugal ko ci dugal ci dooleem pour jàppale ñu ci xeex bi. Mhm. ñu teg lépp ci suuf daal de nag déglu euh, président Macky Sall moom tamit mu daal de wax ne dégg na li tax nit ñi jug ko dégg na seen mer a ah, ñu ne kon bo jar na ñun ñëpp ñu toog seetaat suñu bopp parce que ñun ñëpp Sénégal rek la xeexal te bëgguñu dëkk bi daanu wante bi ñu toogee diir mu jékki-jékki ñu dégg ko ay ministre di wax naan ñi doon manifester ah du seen naqara leen tax a manifester ay terroriste lañ ñi naan ay nit yu lëndëm yu jóge fële lañ ñoom ñëpp ñu koy wax ay waaw ñii naan ay mbër lañ yoo xam ne amuñu combat Mhm. waaw léegi ñu koy wax fu nekk surtout di ko wax bitim réew di foyee mbirum terrorisme may wax ne loolu lu lu doy waar la ci koo xam ne da yore réew di wax ne sa askan ay terroriste lañ ba ñu gisee loolu nag ñu daal di ne ñii ah wax ji de moom àndul bu président waxee fii ñoom ñu ngi waxee fële ñu tegati ci loolu fekk dëkk bi ay ñett weer a ngi noonu ñu tëj lépp ne dëkk bi dafa am Euh, jàngoro boo xam ne mbas moo xam ne dañun ñëpp dañoo war a wàññi euh, saafantoo beeg dem beeg dikk teguñu ci sax ma semaine ñu gis leen ñoom ñu dajaloo génne ay xaalis yu takku ay dizaine dizaine de millions hmm. di def seeni daje di yàq xaalis ñu ne ñii est-ce que ñii xam nañ bu baax lan moo merloo askanu Sénégal ndax li ñu tax a ñun askanu Sénégal mooy kumba am ndey kumba amul ndey mooy yow bu fekkee ne yow bokkoo ci ñoom loo def duñ la dox jox sa àq ak sa ba pare sonnal la dara duñ la ko may. Hmm. boo bokkee ci ñoom mën nga def njëye bu rëy rëy rëy bu gën a rëy fuuf lépp lu ñuy tuumaal xale yi wala Ousmane Sonko. dara dara dara duñ la mës a sax woo ne la ndax yaa ko def may fàttaliku ne mbirum gaz beeg pétrole bi ñëw amoon na fi. Hmm. ba léegi dara xew. Euh, may fàttaliku ne jàpp nañ député loxo ci poste ci mbirum drogue ma nga ca këram tëdd hmm. ak yeneen ak yeneen magistrat dem na ba ci ministère di saytu naka la téye ministère am suñu alal ministre ba dàq ko ministre ba kenn waxu ko dara léegi bu xale yi génnee di am lu leen naxadi bu ñu déggee président taxaw di leen tëkku naan ku ko fi defati man fi nga may fekk ñu ne mais kii ndax xam na lu muy wax naka nga lañ lay jël yow dañ la fal pour nga téye dëkk bi nga war a ñu yoreel suñu koom-koom nga war ñu yoreel suñuy institution nga toog ba may sa bopp di tëkku askan bi naan men fi ngeen may fekk ak wut naa ay ngàndaay ak yu kenn xamul naan bés boo leen jugatee fi ngeen ñu fekk sa ay nit yëpp ñu ci internet yi di bàkku naan ñoom pare nañu mën ne ñii ñan la ñuy nar a xeexal ñan la ñuy nar a ak lan la ñuy pare mm. kon ñun bu fekkee ne ñun ñun ñoo déglu ba toog ñoom ñi ngi pare di wut ay ngànnaay di namm seen doole di namm seen xel pour pare xeex mu wuteeg lool ak lu ñu kilifa diine yi ñaan ah. ba ñun ñu may leen ko lool moo tax ñu ne ñii respecté wuñu kilifa diine yi ci dëkk bi. alors loolu ñu jàppee ni ay dànkaafu la ndax xam da leen di delloo ginnaaw wala dafa gën a yokk xar mi karaw. ah mën na am mu mu gën a jaxase dëkk bi de parce que yëg ku yëkkati ay moom kenn xamul fan lay mujjee parce que bu fekkee ne moom ci boppam ak ay nitam ñi ngi taxaw naan bi yoon pare nañ bi yoon pare nañ te ñi nga xam ne bu ñuy jug juguñu pour dem naan dañuy faagaagal diw wala diw déedéet dañuy day am benn euh, situation injustice wala am naqar buñ leen teg loolu moo leen tax a jug bu ñooñu jugee ndax dañu am naqar fekk fa ñoo xam ne ñoom pare nañu comme ñañu gisoon keroog ca ca kii ba nga xam ne ay duñu policier duñu gendarme duñu armée duñu dara mooy li ñuy woy nervi ay samba boo yoo xam ne kenn xamul fu ñu leen jëlee ñu jox leen ay gànnaay ne leen dem dem leen dal ci askan bi est-ce que loolu la ñuy pare loolu la ñuy pareel Sénégal loolu buñ ko defee lépp luñ ci góobee nañ gar ko. léegi yi xale yi xale yi Sénégal mais kan moo mën a xalaat ne yow mun nga am doole ak gànnaay bu mët boo xam ne da ngay ñëw xanaa bu xanaa dafa pare pour rey askanu Sénégal xanaa loolu lañ pare loolu la ñuy pare bo parce que bu ñu janoog xale yi ñaax fii yëkkati xol yi joxe ngànnaay mais lan lay jur. Hmm. mën na jur musiba. léegi gannaaw la fi xewoon mu am ñu bëri ñu ñu teg loxo bokkoon nga ci ay ponk yi nga xamante ne dañ ko teg ci table bi ngir ñu bàyyi ñooñu waaye mu mel ni ba léegi am na eh, ñi des léegi ba léegi ci loxol yoon. Eh, ndaxam dëgg la ak ñaata lañu. waaw ñu ngi ci fanweer. Hmm. mu am ci ñaar fukk ak ñaar yoo xam ne ña nga Jurbel ba léegi seen situation dara amul dara évolué wu ci. Hmm. loolu. mu jaaxal ñëpp lan moo tax ñu jël ñooñu ne leen ñii duñ leen bàyyi ñu dellu seen kër ndax li taxoon yëf yi am ñu ci bari ña nekkoon ca kaw ca njëlbeenu uh, wax ji mhm. ñoo ñëpp dellu nañ seen kër ñi nekkoon ay xale yuy manifester lu tax bàyyiwuñ leen ñu koy naqarlu bu baax a baax a baax a baax te ne lii tamit bokk na ci li nga xam ne bés buy jub di amaat naqar bu rëy rëy dina ko mën a jur ndax loolu du du dëgg du yoon teguñu ko fenn lu dul rek ñoo yore doole ji comme niñ koy waxee di def lu leen neex di buum di buumi ci biir senegal yéen a ngi yëgle tamit ab mémorandum bi ngeen war a fësal lan la ñuy xaar ci euh, boobule mémorandum. waaw ñu ngi ciy liggéey ci mbirum li amoon naka la demee dëgg-dëgg. ñun li ñuy wax ci mémorandum bi yépp dañ ciy indi ay ay firnde yu leer nañ moo xam ay vidéo moo xam ay kàddu yu ñu moo xam ay jëf moo xam ay bind waaw waxu ñëwuñu pour di tontonte dañu ñëw pour wane lan moo xew li ci des nag mooy hmm. Sénégal toll na fu mu nekk nii euh, ci foo xam ne euh, li ñu tax a jóg muy suñu démocratie suñ ko bëggee tabax duñu wàcc ci suuf di tëkkuwante di xeexante di dóorante déedéet dañuy ni yëg ci kaw am gis gis lépp loo xam ne mooy dëgëral suñu démocratie naka lañ taxawaatee saytu ko ndax am nañ ci loo xam ne liggéeyoon nañ ci wante fii ñu ci toll ci deux mille vingt et un am na yu bees yu ci tegu yoo xam ne kenn xaarul woon président Macky Sall moo ndir ñu yooyu tolof tolof parce que ñun Sénégal lañuy ñuy su ko defee ñu xool Sénégal ci kaw au lieu ñuy nekk fii di tëkkuwante wala di xaar kuy kuy dóor wala di dajale ay ngànnaay pour pour di xeex. Hmm. ñun dañu bëgg xoolaat Sénégalu ëllëg naka lañ ko war a liggéeyee naka lañ ko war a tabaxee. ba nga xam ne suñu institution yi dëgër suñu koom-koom mën a jëm kanam te xale yi li leen naxadi wàññeeku wala boog ñu faj ko ba mu mat sëkk. Hmm. madame Diop élection locale yi xamaguñu ba léegi kañ lay doon ban at sax ndax deux mille vingt et un bi wala euh, deux mille vingt deux taxawaayub MDD ci mbir mi. waa ñun xeex boobu euh, FRN lañ ci àndal. Hmm. ndax euh, date bi lu lu am importance la ndax élection yi dañu tegloo. fu mu nekk nii gannaaw élection législative yi deux mille vingt deux la. Mhm. léegi lu ñu pousse ci élection locale yi rek. day indi yeneen yeneen problème ci yooyu élection di ñëw. Mhm. loolu moo tax bi ñu seetee ba seet li mën a am ñu ne nañu fexe ba mhm. deux mille vingt et un bi. damay fàttaliku ne bu ñu wax benn opposition moom moo indi retard. ndax président Macky Sall lu mu bëgg daf koy def fàttaliku leen référendum yi ba muy dem référendum texte yi sax pareeguñu su bëggee dara da koy def su bañee dara nag daal dee ko ci gannaaw opposition moom mel ne moom bu ko opposition waxee ne doxalee nii da koy déglu mhm. déedéet deux mille dix neuf lañ ko àq woon ne ko nañu fexe ba saytu fichier électoral audité ak def yëpp deux mille dix neuf mu xaar ba tey muy soppi ci dellu si waat kon bu tardé amee bu mu ne opposition moo ma santoon bi moom moo deful la ca war ba mu ko waree def tey jii nag FRN xool nañoo xool ak spécialiste yi ba ne décembre bii di ñëw buñ ko passé te lu mën am la te teg dañ ko teg ci fu leer hmm. en daal bokk na ci li dëgëral suñu démocratie hmm. ñuy respecter calendrier électoral hmm. te loolu ci responsabilité la moom moo fi woote woon dialogue ne def leen di déglu hmm. wax nañ ba ca ba ñu waree wax tey jii nag yëf mi ngi ci loxoom bu bëggee jàmm ci dëkk bi na organiser élection locale na ko organiser parce que li c'est pas normal ah parce que li muy jur mooy bari du élection locale rek du xëccoo léegi rek mais li muy jur mooy bari buñ ko deful ci biir biñ ko ci app biñ ko war a def loolu mooy wax. Ah, ponk bu mujj ñu wax ci euh, euh, conseil présidentiel bi gannaaw euh, kon ba ñu fa jógee nee na dina samp plan d'urgence ngir wàllub xëyub ndaw ñi ban yaakaar ngeen ci am. waaw conseil présidentiel bi gannaaw ba ñu ñaawloo nag wax dëgg yàlla. na mu ñëwee di takku takku askan bi mhm. euh, nga xam ne moom euh, ñu ngi ko doon ci ay proposition boole ceeg tamit euh, nga yore réew mi deux mille douze toog ba deux mille vingt et un nga ne léegi da ngay commencé di toppatoo xëyu ndaw yi dafa xaw a doy waar wante ba léegi rek ñu fexe ba bañ def bañ a def nañ daan def jox ko ñoo xam ne amuñu projet yu leer amuñu business plan su ko defee ñu jël xaalis bi ah jéem ci li ñu mën ñu lekk ko waaw mu nekk encore ay bor wala ay lu perte Sénégal daal ah li ci des tamit mooy bu ma sañoon ñu hmm. gën a dëgëral suñu entreprise su ko defee ñu def ñoom ay contrat voilà daal deen leen léegi euh, jël leen lii ci ndaw ci ndaw comme ni commencé nañ di ko fa sax jël leen lii ci ndaw ñu jàpp ñu jàppale leen lii ci fiscalité bi wala ci seen salaire ñu ngi koy def wante dafay fekk kan kooku am ay commande hmm. parce que entreprise pour mu jël ay nit ah il mu am lu mu leen liggéeyloo am ay recette su ko defee mu am mën a ay charge am maanaam ñu bàyyi xel secteur privé bi daal. voilà du nekk rek damay jëlal nit ndax politique wala damay jox nit xaalis pour mu def projet fekk kooku moom mënul sax entrepreneuriat defe daal bu ñu saytoo bu baax ñan ñoo ko ci mën ak lan lañ bu ci nekk naka lañ koy defee defe naa ne dina am lu mu indi daal ci secteur boobu nga xam ne ñëppay ñaawlu daal ni xale yi sonne hmm. jërëjëf nga bokk ci plateforme Sénégal bi ñu bëgg bokkit ci ñu jiite mouvement M2D madame Ndeye Fatou Blondin Diop ñu ngi lay gërëm bu baax maa ngi lay gërëm